ah jërëjëf euh, xanaa di xamal xam leen rek euh, am réew bi suñ borom bindee àdduna da ko bind ci nii ñii dañuy nekk ay docteur ñii nekk ay masisa mooy justice bi ñii nekk sécurité publique mooy suñu autorité yi nga xam ne ñoo yor euh, sécurité réew mi ñii nekk autorité locale yi donc man bu may dem màkka bi may dem màkka dañ ne da ngay vacciné wu màkk kenn du fa dem te amoo vacciné woo damaa vacciné woo chaque année damay def damay damay vacciné woo wax ci grippe donc di sama doom yi suñu doom yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu naan dañ leen di vacciné polio dañ leen di vacciné ŋas dañ leen di vacciné xureet ñu di leen vacciné ngir bëgg a mucc donc soo vaccin yi ñëwee pro lii ñëw ci adduna bi dal ci réew mi dal sonal ni ñëpp tënk adduna bi yëpp ci économique ak lépp donc suñu demee di jël ay gestes barrières di def ay social kilifa yi luñ man lépp ñu def ko lu état Sénégal man lépp ci ay moyens mu génne ko ba ñu ne lii de mooy vaccin bi génne nañ ko vaccin bi rek la nit mën a def mucc ci man li ma xam mooy képp ku bëgg mucc na def loolu. loolu moo tax bi ñu wootee cérémonie bi mu mel ni di def lancement bi bi ñëwee hésité wuñu sax ak euh, autorité yi muy mm, en tant que maire en tant que sous-préfet de Ndam en les médecins district yi. directeur hôpitaux yi loolu moo tax ma sensibiliser l' ensemble des conseils municipal bi ànd ak sama adjoint maanaam ak ñëw fekk bi autorité locale bi ak médecin yi ñu ànd ñu ñu ñu def acte boo xam ni nit ñi dañuy xam ne ñun ñii nga xam ne kat ñun la yàlla natoo ñu nekk ci bopp nit ñi ja nangu nañ ko def nañ ko ndax ndigal boo koy def da nga ciy da nga booy booy digle nit ñi moom looy def da nga def nekk ba noppi ne ñëw leen ci amuñu ci benn arrière pensée ci ne baax na war nañ ko def def nañ ko. xam nga euh, askanu tubaa ñaar rek la ñuy déglu liñ xa liñ gis ak ndigal liñ dégg su su bi may ñëw fii man dama am ndigal ci ñëw fii su ma amatul ndigal du ma fi ñëw xam nga ñun ay ay exécutants lañ maanaam ay militaires lañ yoo xam ne ordre la ñuy déglu buñ ne ah dara da ñëw na dañuy dem ci xalifa général de Mouride dem ci euh, kilifa yi ni leen nangam de ñëw na. bi may ñëw rek dama ñëw ne ko nañ ci nanga mu ne dem leen yal na leen ci yàlla defal ndam eh, yal na ko yàlla barkeelal ñu ñëw ñekk man su fekkee ne am ndox laa ñu ñu ñekk ma gannaaw jot naa ndigal rek buñ ma pikiroon am ndox sax wóor na ma ne mën naa ciy jëlee ak wér ndax nag nit ka day feebar du wax vacciné wu dem ci sëñ bi ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma ma wér mu tafli la nga yàpp ne nga jàpp ne loolu mën na laa wér la tey it sëñ bi de lu bari def nañ ko miracle yu bari gis ngeen ko ci loolu ci ci ci taf li mu wér kon nag vaccin yi jàpp naa ne nit ñi amuñu sax lu ñuy luñ ciy wax yaakaar naa ne fii ci Touba moom ak euh, médecin district bi ak euh, euh, autorité santé docteur yi nii ñu jàppee nii képp koo xam ne ni ba bëgg ngaa ñëw ba ngaa vacciné wu da nga ma da nga mbir nag lor ak njariñ nag du daj nit ñi ba addina tukki lu jóg am na ñu ko moom bu dee njariñ am na ñu ko war a jariñoo bu dee lor am na ñu muy dal am na ñu ciy mujj